alors ça donne euh, rab bi dañ ci am ndam. <laughs> kaañoo bi nag commencé na si plateau mais coow jibul de ah nomination laa laa. da ngaa waaw waaw loolu dëgg la ah. loolu dëgg la. waaw ah, bëgg culture. <laughs> alors euh, Mame Gow ñu koy wax am na nomination yoo xam ne amaat na démb euh, comme niñ ciy revenir à chaque fois alors tey nag un si am benn boo xam ne particulièrement euh, suñu bos la la ñuy wax waaw kay parce que koo xamante ne si kër gi la bokk hmm. GTV la bokk j'ai tim la bokk hmm. mais surtout Bonjour Sénégal la bokk hmm. ñu nommé ko directeur général maison de la presse mu nekk une satisfaction macha allah xam ngeen ko mooy Samba Biagi naroon naa ko folli pour fal Mame mais Mame Goor seet naa ba seet mais yow laa nar a pour falaat Samb. Eh, ndax Samb temps yi moo xew. temps yi Samb bi yaa ngi daal di bëri. Ah, man de gis naa manga manga saa tey tey nee na day changé day changé oto. Ah, eh, yéen nag ah. da ngeen bëgg Samb of nag teel ko <laughs> te nee na mi mi ngi aussi ay añ ak affaire yooyu yëpp eh, man de magasin jaaxal na ma. ko de moo nar a daane Samb. Hmm? a

Euh, gis nga bin fi jàppee ñun bokk nañ ci ay ay groupe yu bëri uh-huh. ay groupe free press ak yeneen groupe yu bëri quoi bin uh-huh. ci fi jàppee Pape Alé Niang uh-huh. ak ñëpp daf da doon ñëw di engagé wu moom lu xew ci journaliste moom day teew moom moom dafa am jot jot jot ci ak pour nit ñi quoi. Mhm. lool mom cede bu ma koy def ci mom la. ba pare xol bi aussi euh, xol bu rafet la yor. Mhm. loolu moom vraiment c'est comme ni ma ko waxee dem cede seede seede boobu laa mën am mhm. ci mom euh gis na ne yag na ci c'est un c'est un il est très passionné. des fois dama ko don wax sax waa biyaa gi nan ngay mën a émission 21h heures bëgg xëyaat ñëw. ñëwaat ma noo <laughs> bëgg a xëyaat fajar teel ñëwaat ma ne ko non non garaawal su ma ne ko mais eh, wala nga def ci suba gi bëgg a dem dem ci ngoon gi demaat ci ngoon si non non loolu <laughs> loolu mën naa ko gérer loolu <laughs> waaw non il est il est pas il est très passionné nag mhm. boo xoolee parcours am mooy li mu dugg nii ak li li ko ci fekk mhm. xam ne passion moo ko may quoi mhm. passion moo ko may bëgg liggéeyam ba pare bëgg nit aussi loolu moom vraiment euh, nit ku baax la euh, te dañ koy ñaanal maison de la presse bee mu nekk mu am ci ndam parce que maison de la presse peut-être ni ni peut-être le rôle bi mu jouer dëgg-dëgg sax joué gu parce que maison de la presse leur xam ne c'est Abdoulaye Wade moo fi mhm. c'est un très grand bâtiment. Mhm. boo xam amne ni toutes les commodités. mais sénégalais yi xamagul maison de la presse li muy jariñ. Mhm. parce que maison de la presse journalistes yi war nañ ci gën a gis seen euh, ñun ñi ñep suñu maison la parce que tout nañ ko maison de la presse là dafa am ay chambre am ay affaire yëpp am lu bëri yo xamna ni Sénégal yi sax xamuñu ko xamuñu ko premier anniversaire premier anniversaire bonjour Sénégal justement maison de la presse ñun lañ ko célébré waaw waaw gis nga gis nga donc donc c'est c'est mom aussi xamna né amna ci euh, euh, yéné ci maison mhm. de la presse parce que mom mhm. yag na bëgg yu démé non ba mhm. paré ay défis yu muy relever dañ koy ñaanal en tant que fi la nékkone des tv la jógee après des tv changé ñu nekk fi

et puis dina ko gérer avec la rigueur requise mhm. parce que comme gars ak xaar ci mhm. ah, groupe euh, télévision euh, global télévision mhm. GTV l'ensemble du groupe GTIM koy féliciter euh, yalla defal ko félicitations Samba tatchu <laughs> Alors, Sambo Momo, il est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en communication événementielle et planification stratégique. Euh, stratégique. Euh, ça hmm. élément là, ça là. Des moments où on toujours préciser, monsieur le directeur général. a commencé avec A ah, commencé pour une barre. Daga, A commencé une barre. succès. Hmm. commencé Ah, <laughs> aɗa waal ni di faral di wax daal élève eh, bi raw na eh, maanaam raw professeur wala raw na sax ki nga xam ne maître ma waaw en tout cas daal mu ngi gi dafa nekk koo xamante tay nit la maanaam en quelque sorte tey sama tànk manam tay bu ma ñëpp xamee sax wala bu ma ñëpp ràññeewee ci télé bi gannaaw yàlla moom la jibi saar ak ki nga xamante moom mooy sax ju dama koy di ji mais surtout itam moom moom moom da ci impliqué wu lu kon tay biyaa gi dafa nekk koo xamante ne tey lu ma defal defal na ko ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen lu mhm. lu kii benn jour ñu ngi daw ci oto ma ne ko yow ah, gis nga gars ñoo ngi six minutes chrono nag waaw ah dégg nga ma ne ko ma ne ah. bi gis nga yow li nga defal gars yi bu ñu la ko fayee yow mhm. bu la nee sax da nga toog sa kër rek jàpp sa mhm. njàmbur en tout mu nekk koo xamante ne nit ku yaatu la nit ku baax mais aussi sam li ko kii doon wax sànq rek muy euh, booy baal di ma wooye kii euh, maam góor eh. waaw <laughs> mangoor li li li ñuy wax mooy l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lañ ko def parce que itam moom loolu laa yàgg gëm loolu laa yàgg loolu laa yàgg fa uh-huh. wax mais itam sàmm daal fu mu jëmee itam uh-huh. yàlla na fa maanaam maanaam bu fa fekkee cinq yàlla na ko def quinze wala vingt parce que xam uh-huh. naa ne am na capacité mën na ko te xam na ko itam parce que loolu itam ci liggéeyam ci ci liggéeyam la en daal yàlla na ko yàlla defal jàmm di ko wax itam euh, bon vent mhm. euh, yal na ko yàlla defal maanaam yal na yàlla leeral daal yoonam ci barke alxuraanu karim ba sam maam góor wax na ko sànq rek ah man du ma rek maa koy félicité équipe G TV yëpp ñoom ñoo koy félicité les hommes de mhm. l'ombre Mamour ah ak ki nga xamante moom mooy Nuuru ah équipe mhm. yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk yëpp ñoom ñoo àndandoo félicité ki nga xam ne moom mooy suñu tonton euh, Sambou Biagi yàlla na yàlla defal jàmm daal xanaa sa tonton yow de booy mën naa génne vaar émission yëpp boy, nga ko doon woowee. tey nga ni tonton ay Sam, ay caporal. Sam, dafa lu la alors on était en train de féliciter suñu collègue boo xamante euh, Bonjour Sénégal le bokk. et même sur les affiches Sargis gis nga mu ngi ci euh, ñu nommé ko directeur euh, de la maison de la presse depuis hier bon voilà donc ñu doon ko féliciter ñu bàyyi félicitation. Ma koy féliciter bu baax. <laughs> Uh-huh. vraiment Euh, euh, Diko Diko ñaan. Euh, yàlla may ko kattan. Mhm. Ah. Euh, may ko tamit euh, xool ak xel. Mhm. nga xam te ni dina mënu def liggéeyam. ci mhm. jàmm ak salaam.

après l'élection, mhm. euh, élections, surtout élection présidentielle dafay baaxaat mhm. euh, opposition bi day day taxawaat dañuy soxlawaat